jërë ngeen jëf mbokk internet yi dalee nag euh, jàmm si topp bi ñu ñuy topp seen seen bi di Live Dakar 221 ñëw rek bëgg leen a dégteel ay kàddu yi Moustapha Diop chroniqueur foofee sa wal fajri ab analyse bu am solo lool bu xamante ne seen rek daan na koy def rek si kooku di son salat monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye si ab koera bu xamante ne seen rek daanaka jàngat eh, si gouvernement bu bees Mok Usman ak Ousmane Sonko premier ministre daati tegal lek li nga xamante ne si na askanu Sénégal si vingt eh, ministre ak cinq secrétaire d'état moom kooku di Moustapha Diop andi ab analyse ab jangat chroniqueur bu am solo lol sax nga xamante ne seen rek eh, boo ko digloo di nga xam ne ne dëgg rek ñooñee di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Babacar Faye lii nu indi Sénégal daal du ay caaxaan te lii rek ñu tegal li nga xamante ne tamit moo di Sénégal gouvernement bii daal liggéey dëgg rek moo leen tax a jug te mu liggéey Sénégal rek moo ñor te rek la ñu bëgg ba tax rek boobu la gouvernement xamante ne si rek das ko tënk euh, si li nga xamante ne si ne moo di vingt cinq ministre vingt cinq ministre yooyu sax ñu si bëri bëri yaakaar na na ndaw na trop waaye nag cohérent dëgg rek lan ca wane teg liggéey ak xarañte dëgg lan wane sa boobee la cohérent daati fal lu toll ak vingt euh, cinq ministre vingt cinq ministre yooyee kookee di Moustapha Diop andi sab jàngat bu am solo lool si ab cohérent bu xamante ne si na daas nas kay boole si ay ministère ndaxte nag jàpp nañ ne am na ministère yu bëree bëri das ko doon xaajale euh, di bëri di taawali rek li nga xamante ne si na moo di gouvernement bi li ko si mel ne comme système bi nu weesu gouvernement yi fii weesu ku fi mel ne njiitum réew mi Macky Sall euh, fondé woon ko waaye nag buñ xoolee ak gouvernement kii di premier ministre Ousmane Sonko ko ak Bassirou Diomaye Diakhar fay seen gouvernement bu cohérent dëgg la te liggéey dongumoo leen tax a jug ndaxte gis nañ lu tollook benn ministre daanaka lu tolloo ko ñetti euh, poste ministère daanaka moom lañ boole si benn ministre euh, pour rek mu daati kay mën a yore loolu ak cohérent dëgg la si ko wane lu mel ni ko xamante ne seen moo di El Malick Ndiaye ministre euh, transport ba mu yor transport aérien ak transport ak yeneen yoo xamante ne si rek daanaka boo ko xaajalee sa la mu yor daanaka nguurug Macky Sall ñett ministère la woon te léegi bu ñëwee si nguur kii nga xamante ne si moo di gouvernement bees mi daanaka dañ ko boole lépp rek si benn euh, nit ki mu daat koy euh, war a yore ak yeneen yoo xamante ne si ne daat nas koy euh, boole mu daal di nekk si benn nëpp ministère su mel ne agriculture ak élevage ku ne xam ne ne ku la sàmm wax mbay yooye boo xoolee daanaka gouvernement yi fi génnoon des ko xaajale woon def ko ñaari ministère waaye si gouvernement bii rek cohérent dëgg la si wane lépp dañ si ka boole si benn euh, ministère loole nag kooku di Moustapha Diop andi na si ay leelo yu bëree bëri so cohérent ensemble gouvernement boobu nga xamante ne si rek kooku di Bassirou Diomaye Diakhar Faye def nag fonni mu doon a gouvernement bu am solo lool gouvernement bu bees kon dañuy ñëw dégtal leen li nga xamante ne si ne moo di analyse su chronique kooku di Moustapha Diop ñu bokkandoo ko diglandoo nga ko bu baax a baax nga xam ne boobule gouvernement du Ousmane Sonko ak Moussa Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi la gouvernement dëgg-dëgg mooy gouvernement bu normal te bu baax te bu sénégalais yépp di leen xaar pour ñu liggéey Sénégal sa kanam ñu bokk diglondo kàddu yi Diop. xam nga dama ci moom lay waxtaan sax da moom lay wax sax dama ci waxtaan ak Abdou Aziz Tall. Mhm. vraiment muy nit ku ma ku ma naw ku ma respecté. Mhm. parce que à chaque fois euh, Salma may def live fii. Mhm. wala may def euh, chronique ci petit déj wala même keppaar gi. daf koy déglu su paree daf koy jaral mu jël téléphone am li nga xam ne dañuy jàpp ne lii nga wax jubul mu ne la lii jubul li nga xam ne da ko partage ak yow mu ne lii ak nii lañ ko war a wax exemple solo la te nit la koo xam ne il a été au cœur de l'état pendant de longues années xam nga suñ ne cohérence dans ça mooy est-ce que ni ñu présenté mbir yi baax na wala déet mhm. est-ce que xam nga équipe football sax boo ko laajee Cheikh Ndiaye Gomis bu Aliou Cissé dee teg souvent d'ailleurs boo ko retiré le projet Aliou Cissé mhm. est-ce que le latéral gauche est à gauche est-ce que droit est à droite mhm. yu yu noonu donc loolu day jox une équipe cohérence équipe bi Ousmane Sonko présenté Bassirou Diomaye Faye mu nommé leen mhm. euh, ci li ma ciy gëstu yëpp mooy équipe bu cohérent la te naa expliqué lan moo tax mét njëkk a taxaw Abdou Aziz Tall ma wax mu ne ma déjà en 1989 Abdou Diouf daf leen woo mu ne leen Euh, le la BOM mooy le bureau organisation et méthode. Mhm. mu ne leen Sénégal dafa nekk ci benn crise économique bu doy waar. mënatu mënuñu am gouvernement wu 30 ministres léegi dama bëgg ngeen proposer ma gouvernement wu 20 ministre 20 ministres 89. ñu réfléchir ci proposer ko benn gouvernement bu vingt ministres boo xam ne dafay cohérent boo seetloo gouvernement boobu ab Abdou Diouf doon bëgg en quatre-vingt-neuf avec vingt nga comparé ko ak gouvernement bi Ousmane Sonko teg en deux mille vingt-quatre avec vingt cinq ministres soo ko soo ko xoolee day nuyoo dans la cohérence d'ensemble lan laa bëgg wax mooy boo bëggee équipe bu resserrée baa pare am cohérence dafa am ay département yoo xam ne ñu nekk ay wujju mais dañu war a ànd mhm. moo tax par exemple ñu jël agriculture boole ko ak élevage. boo déggee sax souvent suñu maam yi suñu papa yi suñu maam yi dañ daan wax mbay mi ak càmm gi. Mhm. mbay mi ak càmm gi. Ah. ça dire quoi que ni vous avez du gouvernement agriculture et élevage man mhm. parce que ñi bay ak ñi mëno leena tagalé li tax ñu leen da li nga mom la Macky Sall ak Abdoulaye Wade sénégalais. moy mhm. bu Salma Rombé feulé sax euh, ñu ne ko kay ministre donc da ngay obligé di dag dag ay ministère mhm. def nañ de l'inondation, inondation. ministère ministère auprès de et etc. mais bi li ñoom Ousmane Sonko parce que dama ci grave est-ce que li ñëw Ousmane Sonko def ak Diomaye lu cohérent la. mu ne ma booy yii mooy Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye. Mm-hmm. soo xoolee gouvernement bi nga bi ñu présenté nga xam ne c'est des gens qui travaillent. Mm-hmm. man nag sañu ma leen wax booy yi parce que. Euh, <laughs> ñooy suñu ay ñooy suñu mais. mais c'est l'univers, moi c'est des gens qui travaillent parce que li présenter présenté dafa de mhm. dañu jël agriculture boole ak élevage dénk ko benn nit mhm. ba infrastructures jël infrastructure ak transport aérien transport terrestre tout ce que tu veux mhm. jox ko Moi, elle m'a dit El Et Ndiaye voilà et tey bu y neexoon maintenant avec naa ministère le jël ministère des transports eh, terrestres ministère des transports aériens ministère des infrastructures nga jël un autre ministère nga boole ko def ko benn jox ko kenn nit lol daf lay may cohérence même si même si on aura on peut dire oui kenn nit yoré lol lépp est-ce que du diis. comme ministère boobu bi Khady ngay. Eh, dara ci ñëw mhm. mais diis boobu dafay dépendre ci ki nga xam ne moom fal ministre. Mhm. lan lañuy xaar ci mom té dinañ ko expliquer légui so jëlé par exemple industrie ñu bolé ko ak. commerce. commerce parce que dañuy wax très souvent que ni il faut ñu fexé ba ñun li nga xamne mom lañuy consommer ñukoy produire ci réew mi. Mhm. mais kan mo koy produire mbay mi ak industrie tay ji chemise bi ma sol dama ko jënd. dañ commerce moo ko moo ko maye. Euh, li nga xam ne moom la ñuy lekk dañ koy jënd ci commerce lay jaar. Mm-hmm. mais su fekkee dañoo am ay industrie yu koy produit duñ soxla di ko jéggaani feneen. Mm-hmm. moo tax boole industrie ak commerce c'est cohérent. nga jël par exemple li nga wax sànq moy bi Khady nan wax. Khady Diène Gaye Khady Diène yore. dañu jël jeunesse ak sport de toujours jeunesse ak sport Sénégal ñu lan ànd. Mhm. lu bëree bëri en tout cas dañ daan ànd bi Ablaye Wade de euh, Macky Sall ñëwé les libéraux en tout cas nga xamné ne séddaleem poste da leen a neex. Mhm. lañ commencé di jël ministère de la jeunesse fële te souvent ce ministre de la jeunesse là buñ ko falee déwéwuñ ko dara lu dul di dàggasanteeg nit ñi di xeex te les nga liñ mujj liñ fi mujj dund ak mhm. ak surtout Pape Malik Ndour mhm. léegi ñu jël femme bon xam elle a été au ministère des sports parce que mhm. inspectrice régionale des sports la ñu jël ko collègues ko léegi dañ lay sport ak jeunesse ba pare de culture xam nga lu cohérent la parce que mal ngi fàttaliku d'ailleurs il du ngeen ko parce que euh, mais il ya a yu temps yi muy am IAS maa ngi dégg Cheikh Tidiane Gomis temps yële mu koy waxaat dañ daan jël école yi ñuy dajee ci benn dëkk wala ci benn région suñ ko mënee waxee loolu def ay compétition mm-hmm. ci wàllu football ci wàllu culture ci wàllu yëpp ça veut dire quoi que ni culture ak jeunesse ak sport war nañoo mën a ànd mieux boo dans le mouvement nawetaan que je connais très bien parce que j'ai été secrétaire général ASC e pendant ay années mm-hmm. defe naa ne ñoo ko digloondoo mu di kàddi Moustapha Diop chroniqueur foofe sa wal fajiri mu doon ab analyse ab jàngat bu am solo lool si nouveau gouvernement bu kooku di Bassirou Diomaye Diakhar Faye si lekk nan amee ak cohérent gu xamante ne si rek daan nas ko say def ab liggéey bu solo lool bu xam ne daan nañ ko def rek ba fonni sa gouvernement bu xamante ne si rek képp ku ko gis rek di nga xam ne dëgg-dëgg rek gouvernement bu am solo lool lan daati fondé lan daati formé pour rek tegal ko li nga xam ne moo di askanu Sénégal ñu leen see xaar nag ñu daal di liggéey